dañ cee màgg te ci la ñuy dee ci kattanu yàlla donc bis bi li may wax chaque jour rek tey ñi ñëw fii xam na ne daf maa ñor moo tax ñu bàyyi seen yitte yëpp ku ne xam na ni ñëw événement bu mun ci am booy dugg dañuy baade mbedd yeeg tali waaye ñu xuus jàll gaare seen oto ca àll ba daal di ñëw di bisu Seydina max Mahdi bi sant naa kontaan naa ndaxte li ma booleeg moom dafa dafa rëy li ma booleeg moom dafa rëy wax dëgg yàlla mënu ma sax wax ci ci ci loolu waaye daal maa ngi sant yàlla bu baax sant naa yàlla bu baax a baax a baax a baax. alors Collé comme ni nga ko a mhm. waaw xam nga ne Seydina Limamou li ma waxoon rek moo ci nekk nee naa la moo weexoon démb ca màkk moo ñu tey ñu dëggal woote baayam gi ñu dëggal wooteem bii tey moo tax tey ñuy màggal après chaque année ñu koy def parce que nag macha allah tubaarkalla li may wax chaque jour di sama xarit bi wax Tafa Touré saa yu nu jàkkee jaaxle. ba daal di jàpp ba sell sol suñuy yëre yu weex dem ca jàmmalaay ba ñaan fa suñu soxla bu fajal lu ko kon nag euh, macha allah tubaarkàlla mun lu bisam bii ñu yokk di sant mun lu bisam bii def ci lu nu mën ak lu nu mënul di sant ñëpp nga xam ne jàpp na ci parce que def bis dafa metti say mbokk ak say xarit say am du jàmm ñëpp ñëpp jàpp ñëpp sant leen sant nañ yàlla bu baax a baax. Mm-hmm. en tant ki nga xam ne kii nii mm-hmm. tey jii li nga xam ne mooy yëngu-yëngu dëkk mm-hmm. ku na xam ne yëngu nga xam ne ñoo ñu jiite nga xam ne ñoom mooy xale yi nga de jeunesse soo digal ñaari ñaari kii yooyu yëpp lan nga leen di wax muy xale yi ak ñi xam ne ñu jiite waaw xam nga li may wax chaque jour rek dëkk bi luñ fi yàq rek sunu bopp la ñuy yàqal donc dama bëgg ñu gën a dal ànd sunu suñu xel ndax li wax chaque jour suñu kat carte la nu yore heure bu voté jotee nee naa la mun nga votel ku la neex mais taala ki yàq su ma sañoon teg si si parce que ñun ñoo ciy loru kon nañu gën a dal suñu njiit yi tamit yërëm nu xam ne nag ay ndaw la ñu bëgg suñu réew avancé parce que ku sañoon doo dem wàlli yaani beneen réew ndax lima ma sax du richesse Ko suñu rew ku am pétrole am yenen ak yenen ak lépp ngi fi waye nañu and ak dal parce que nak euh, lu la dal may lu xet xet du lako may te it nag gañu yu ci gis ba si barki Demba Ndiaye euh, metti na trop man barki demo ndjay vendredi bima ma ñi def ay achat lima gis ci côté Medina bek tak tak yi ba gis ci yoon bima jaar dama tiit kon nañu gëna dal ñu xamanteni ni rek ci rew mi lay ci rew mi la bokku ci rew mi lay mujjé ñu def nank ñu tek lepp ci yoon ci ci ci jamm ak alors le dañu gis depuis double fii ak li nga xamante ne moom moo di brigade des hmm. ci lan ci parce que à part mœurs def nañ fi euh, choix ak ñoom Sanex def nañ fi ay corps ñi ngi ci plateau TFM bi instant yi nag ñu ngi préparé film bu mag bi nga xam ne tudd nañ ko Thiès ça fait deux mois def nañ fa deux mois Thiès euh, ay ndaanaan yu mag nekk ci nag euh, incha allah bientôt mu génn élection yi moo ñu woon léegi nag comme ñi ngi wax naan puus nañ ko puusuñu ko incha daal lépp ci producteur bi la la la la basé wu mais préparé nañ lu doy waar loo xam ne bu génnee àdduna bi yëpp nañ kontaan. élection mmh. yooyu nga xamante ni son excellence puus na ko naka la ko xoolee gis nekk na loo xamante ni d'accord nga wala nekk na loo man xam nga li may wax sax du nee naa gor ca wax ja comme moo waxoon rek mun na ko def waaye lépp loo gis rek am na condition mais loolu yëpp rek nañ ci ànd ak dal bu ko defee ñu xam ne lii dafa am fu mu basé mu waxtaan nit ñi parce que bu changement am mais am na lu tax mais nañ ko waxtaanee ci dal comme changement am na toom moo waxoon élection bi ta jour euh, weer tel lay am bu ko annulé rek am na lu lu xew wala tamit bu nekkee daf ko annulé ci coobareem nañ ko waxtaanee daal ba jàmm am ak salaam parce que nit amoo mën a boo nekkee njiitu réew dafa am loo xam ne noonu lay doxee parce que jeunesse bi la war a ñor comme jeunesse bi li leen bëgg man su ma sañoon mu def ko te it nag mu yërëm xale yi parce que nag gaañu gaañu yu bëri na mbir yi metti na te su ñun ñëpp suñuy njaboot dal moom mi moom moom moomu tey di président ba koy nuyu bu baax moom mi ne ñiy gaañu ci mbedd mi ay njabootam la leen na leen yërëm ndax ku jiite da ngay tëddee njaaxaanaay Euh, alors kon gis nañu li xamante ni moom moo euh, bu bëree bëri la. alors kon nag moo nekk wala sa ginnaaw yi moom ay sponsor parce que Paa tamit dañuy gis tamit ñu sponsor di sa <laughs> mais sant rek xam nga li may wax chaque jour comme danoo nekk ci aar. te yàlla def ni li may wax chaque jour rek euh, danoo ñor tab bi kenn gësamuñu ñu mbapat ci liggéey su suñu doyen nekk ci tey ci li ñuy liggéey ci la ñuy suturu ba mën a def ci bis bi daal ci sant yàlla teral na lu baax ci sunu liggéey bi teg ñu loxo ci barki Seydina Mouhamed ba lépp loo xam ne tey def nañ ko fii ci sunu ñàkk la ak suñuy mbokk nee naa tey jii la laa wax tey ñi fi nekk ñëpp nee naa leen tey consommé local moo am ñu ne ma lu tax ma ne leen parce que ñi dressé ci man lañu bokk mooy ñi defar fruits yi muy ay da caam bàyyi lépp bàyyi liggéeyam ñëw defaral ma ay fruits ba mu rafet nga xamante ne moo defar table bi ceeb yeeg yooyu muy ay de seen dadaa traiteur kon consommé local laa def ñi fi nekk ñëpp ba ci tailleur bi ma ñawal ci kër gi la bokk donc kon sant naa kon man sama famille way jàppale di gërëm ñëpp di gërëm sama yaay bàcc li sembera parce que lépp moom la tey ji moo defar lépp ba lépp baax tey bu ma nit ñi wuyu see li ma naan doom bul ko nawee rek ci nday jala kon sant naa ko gërëm ko di nuyu samay sœur samay frère ma kenn kenn ba ci yéen ñi nga xam ne da ngeen déplacé wu pour man tey dañ la ñëwoon ñu naa fekk amoo borom kër waaj lu may xam naa dafa ragal xam nga ragal dafay am. xam ne da ragal dafay am mais nag comme waxaat nañ ko waxoon nañ ko daaw waxaan ko ren na dëggal boppam sinon tamit li waykat bi wax rek da naan coppet. match bi tas dañuy cof coppe rek daal di yóbbu bi tas affaire bi amul benn problème ku yéex rek ñuy jël problème amul parce que affaire dafa yomb te sama jongo ma yëpp nee naa ñaanuma kenn ma bu njëkk may bu dëkk laa ñaan maa la wax li lii dong mm-hmm. Mm-hmm. sa waay wax mm-hmm. ne ci euh, waaju lu muy xaar daaw nga ne ma. Mm. man fi ñu toll nii eh, nu ñu koy waxee eh, borom wax ma loolu wax ma loolu li ay waxu rubé la. mais nag kaay ma wàll benn affaire que mu nekk artiste que mu mun a nekk artiste artiste yaa ngi fi macha allah nekk ay jàmbaar nekk ay ay góor yu baax na di yor benn ba ñaar ba ñett nekk ay liggéey kat dem nañ ba nga xam li may wax chaque jour artiste yaa ngi dem fépp partout dans le monde di tabax seen i kër yu baax kon war nañ mun am ñaar ba ñett artiste bu nu jëlee dañ war a jël. loolu artiste laa di mën da ñàkk benn artiste nekk ah journaliste mën da ñàkk lépp ci aar bi di ñu ngi si thème aar yéen ban position ngeen nekk buntu bi mais buntu buntu garage la yoruma buntu bu ndaw la buntu garage la mais am na ku fi nekk mën da ñàkk mën da ñàkk loolu mën da ñàkk am na ku fi nekk mais bu gaaw ngeen gaaw rek amul benn problème non non dama na ko koo xamante ni di ko dóor ba ko wéq ak yu mel loolu loolu loolu gisuma ko wax dëgg ndax maa ngi woon ci appel bi mais nag bu nekkee noonu la demee wax dëgg yàlla ñu ngi koy ñaawlu bu baax a baax a baax parce que li may wax chaque jour ak jigéen lu mu mënti doon jigéen rek la mën a doon yërëm lañ ci wax suturaal sàng lépp bu bu defee lu dul yoon sax war nañ ko teg ci yoon voilà donc man loolu yëg gisuma ko parce que maa ngi woon ci préparation bi mais daal bu dee noonu la demee ñi ngi ci ñaawlu bu baax ba di waxaat njiit yi nañu xoolaat bi doy na nag doy na wax dëgg yàlla doy na. d'accord alors Collé li nga xamante ni moom moo di réseaux sociaux yi surtout ci mel ni TikTok bi yàqante beeg waxante yu lu ñaaw li vidéo yeeg audio nga xamante ni ñu ngi koy génne. Mm-hmm. en tant que koo di éviter rek parce que li may wax chaque jour euh, nit mënoo ne diw baax na ba pare ba ba wëlbatiku ne bon na parce que gis nga yenn saay àdduna euh, ànd ab tàqalikoo ñoo am mais dafa war a rafet man pour ma nit jom na wax ne diw baax na waxante lu baax ngeen ànd ba ñëpp gis leen ak lu coow bëri bëri bëri bëri bëri neel teg parce que nag ku ne tekk tekk war la yoon mais waxante bi defante bi nag surtout ñun suñu moroomu jigéen ñi amul sens donc nanu dal ñu wàññi lépp wàññi coow léegi wàññi tiktok yi xam ne ñu ne neen la boo gisee sa morom def la naqare war nga déplacé wu waxtaan moom ci njëkk ak teraanga moo gën waxante lu ñaawle parce que yéen a àndoon def fii koo àndal xamal na la donc bu coow amee na ngeen sàngante sutura def ko ci jàmm def ko ci salaam parce que li may wax chaque jour jigéen mooy yaay jigéen mooy lépp jigéen mooy àdduna jigéen mooy gouvernement jigéen mooy lépp kon ñun jigéen ñi bu ñu naree nekk ci réseau bi di yàq ndax soo bis ak jaru ko carrière artiste dafa gàtt na jigéen dañuy yor suñuy jëkkër dañ ciy war a concentré wu yor suñuy doom et kon nanu dal gën a wàcce waat affaire yi xam ne daal ñun la ñun jigéen ñi ci ñun la ci la lépp di commencé ñun ci la lépp di jeexee jërëjëf merci beaucoup merci beaucoup kontaan